jërë ngeen jëf eh, mbokki eh, internet yi dal leen ak jàmm ci mbirum Ousmane Sonko ñeneen rek ñu nu jàppaat ci mbirum Ousmane Sonko dolli ko ci ñanu jàppoon bokk na ci nag di chef de protocole am rek muy Djibril Gueye Ndiaye chef de protocole Ousmane Sonko bi nag daal di nañ koy jàpp rek fële sa Mbuur ak quatre éléments yi nga xam rek ñoo yor wàllum sécurité ki nga xam rek moo di président Ousmane Sonko ñoom ñi la nag ña ngi leen jàpp fële sa Mbuur te loolee nag dara warulu ko lu dul rek bi nga xam ne di président Ousmane Sonko mi mu ngi koy amal loolee nag la ñu bëggul benn yoon mu am na gis nan fële sa Kolda rek ki nga xam ne moo di président Ousmane Sonko ba mu fa yeggee ay jàppante ja nga xam ne rek amoon na. jàppante yooyee nag daa mujj daal di daal rek waaye dañoo gisaat ne kii di président Ousmane Sonko bu muy wéyal ab demam rek dañoo mujj rek daal di baare aw yoonam. loolee nag indi jafe-jafe rek ci ñi nga xam ne nii ñoo toppoon ki nga xam ne rek moo di président Ousmane Sonko muy amal karawaanam boobu rek nga xam ne da koy amal pour wut si fii nga xam ne rek moo di sa Ndakaaru waaye loolee nag nanguluñ ko ko benn yoon ndax saa su ne rek ña ngi koy tegal ay ndëgg sarax ca yoonam woowule